di ko booleeg nuyoo mbooleem kilifa yi ñu àndal ci délégation bi ak ñi nga xam ni ñi jotuñoo ñëw di ko booleeg suñu ziyaar di ko booleeg di yeesal di fedd li suñu taalibe di la ko jébbal Mbàkke tànki tey nag ci benn baat rekk la tënku muy cant di sant suñu boroom bu baax a baax a baax di julli ci yonentam bi muhammad aleyhi salaatu salaam di sant sëriñ tuuba cant bu wér di la sant mbàkke yow mi fiy sëriñ tuubaa tey ci kaw suuf di sant mbokki taalibe yeeg mbokki jullit yépp di sant population Sénégal yépp di yeesal di fedd li ne fi nga ñu tegoon rekk fi la ñu nekk ba tey te mooy tënku ci njàngaleem sëriñ bi ak lu ñuy mën di sàkku ci àddina ci loolu lañuy ñuy tënku yaa bi in aataytani fa shukru wa in manata faridan wa di feeñal suñu mbégte bu baax a baax a baax ci lépp lu suñu boroom dogal te amuñu benn sikki sàkk amuñu benn werante ci ne lii ñu jóge ndam lu yi lañu ci defal ñu fekke ko tal ko tàbbi ci ci jàmm génn ci ci jàmm di sant cant gu wér cant gu am foo xam ni am na fu mu tàmbalee wante amul fu mu yem te ni ko xol bi yëge baat yi lott nañu ci génne ko di gën a yeesal di gën a fedd li suñu laxasaay ci biir tool bi te mooy liggéeyal bu baax a baax a baax askanu senegaal ci wut jàmm ci dàq lor ci di njariñ fu ñu ko mën di fekk ci loolu ci lañu tënku ci lañu taxaw ñu nag kilifa yi nga xam ni yi ñoom lañu àndal yépp di la ko seedeel ci Mbàkke loolu moo doon tànk yi ñu ne xat waaw waaw Mbacke jërëjëf alhamdulilah. déggoon naa ko itam. Mm-hmm. ci benn baat. Mm-hmm. kon naa ne ñu gën a sant suñu borom bu baax. alhamdulilah. ñu gën a sant sëriñ bi. si ñëpp te jëf. ñu ko daa waxee. ñun kon ñu jëfe ngeen ko. daa wax ne Sénégal ba ñu amee sëriñ Tuubaa lañu amoon jàmm. loolu. waaw yàgg na. dëgg naa ci kër yi tey dina la Sénégal ba ñu amee seen tubaab yi amul kon yéen teg ngeen baat boobu da ngeen ko jëfe dama ko waxoon rek yéen mel ni ne ngeen ko itam ndax mooy cant bi alhamdulilah mbokk alhamdulilah mbokk kon jotaay bi xam naa lu doon man maa ngi ciy gën a ko wàllu loolu moom kon am yëg nañ ko ñu ko gis nañ ko suñu xel teg nañ suñu bët kon cant moom ñu ñu tuddee sant cant xanaa dañ cay teg rek danaa di wax suñu waxi taalibe te man loolu laa gëm dama wax ni yoon bi fi mu agsi sori na lool waaye li ko ci li ko fi indi bu ci jaam ñi amee wàll mooy bëgg sëñ Tuubaa ak doyloo ko fii yoon wi toll sori na lool moo looloo ko fi indi waaye des na lu bare bare bare bare dañuy taxaraw nag moo di ni ñu bëggee Sëriñ Tuubaa doyloo ko ñu jéem ko ne xame mm-hmm. buñ ko ne jéemee xame lu ñu ci xam jéem koo ñëwee jëfee dafa gannaaw tawféex daal lu bëgg lu baax teel a tax bañ lu bon teel a tax def lu baax teel a tax daw lu bon teel a tax loolu rek kon ci kaw kàddu yooyu incha allah Mbacke incha allah Mbacke. suñu borom moo def lépp. muy tëddee lépp moo ko def. coono yow. incha allah Mbacke ñi bari bari bari. jikko yu bokkul kon rek li ci am solo mooy góor góorlu gën a xam suñu wartiif gën a xam rek suñu wartiif kenn ku ne ci ñun masoliyaar yi bokkul maanaam responsabilité yi bokkul kenn ku ne ak ceeb la sa am ñu boole ñu bari bari ceer yi di gën a passé di gën a kawe waaye ñun lépp suñu borom moo ko nas kon kenn ku ne ci ñun fa nga xam ne suñu responsabilité foofu la yem gën jéem ko gën a xam bu baax a baax a baax jéem ko gën a jëfe bu baax a baax a baax muy loo xam ne noonu rek la ñu góorgóorlu bu baax kenn ku ne ci noonu jéem xam rek sa wartif waaye lépp dafay dellu rek ci ñun ñëpp di gën a fekk wala di gën a tuuti ba ca gën a gën a kawe dellu rek góorgóorlu suñu wartif waaw di wax ne adduna bànneex amu ci ci bànneex doon am mooy ki nga xam ne toog na ba xam ne wóor na ko ne mi ngi nekk ci waxtu di ko def ci xol yi par benn ñëpp daj du tee suñu boobu lépp moo ko def liy weesu woon te dem mosu fay jóg xaw suñu boobu di tam yoon ci nguur buur bari soppiku ci dellu si léegi nit ñi yor dox dox ko nit ñi yoral ko seen bopp ñëpp yem ci ñëpp bokk xalaat ji ñëpp bokk jëf ji loolu mooy lii luy wees kon la ci am solo rek mooy kenn ku ne ci ñun xam sa wàtte góorgóorlu ñëpp ñëpp nit war a jëkk xalaat mooy góorgóorlu xalaat jub jub loolu rek lay tax loolu moo rek moo tax suñu borom yónni leen mooy bunt bi bu njub amee rek yees yomb daal du jàpp loolu nag ñëpp ko bokk bu ndaw gi di doon xam ne ba ci mag góorgóorlu bu baax. góorgóorlu ci suñu wàcc. incha allah. ñun ñëpp xam nañ ne ni muy doxee fi mu toll nii. tout à fait. muy doxee. tout à fait lépp moo ci. tout à waaye ñu góorgóorlu ci suñu wàcc na rëy la ndax si yaakaar naa fan yii séentu wuñ ko woon nii ci yéen la ko yàlla defe jërëjëf Mbacke kon jërëjëf li indi loolu nag yoon waa ngoo jërëjëf Mbacke alhamdulilah jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbacke alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke alhamdulilah Amin. Amin. Amin. soo toogal yi man man taxaw sax moom man dama ko. Amin. Amin. Amin.